bis bi bis bu am solo la ci Sénégal mais bis bu am solo la ci démocratie Sénégal comme que yàlla may nañu taw feex ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim day ñu yéexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax ku ci nekk xam ne ne campagne bi kon bu yàlla dogalee ñu ñëw ba ci bis bi tey ko ci jàmm dañuy sant yàlla baax ni ñu ko tàmbalee ci jàmm mu egg noonu ci jàmm ndax gis ne tey Touba euh, lépp lu ñu doon xaar ci pour nit ñi génn voté nit ñi génn xamante ni ci nekk daf ko am ginnaaw bi mu amee bi mu defee dafa war a dem toog këram xaar résultat yi jot mu déglu ko ci jàmm ku yàlla jox ndam li ñu xam ne kooku ko yàlla jox ñu def félicité ko jàll ca leneen comme ni ma ko doon waxee ci présidentielle yi manquement mënta ñàkk hmm. ndax dëkk bu am parce que dëkk bu am ay dix bureaux de vote mënuñ koo tëkkale dëkk bu am six cent dix bureaux de vote mënuñoo tàmbali rek six cent dix bureaux de vote yëpp di vote normalement loolu mun tàmbali bi muy door a démarré ci diggante huit ni signalé benn bureau de vote boo xamante ni tàmbaleegul vote ñëpp tàmbale lañu vote mobilisation bi fépp la ci Touba kon ni ñu ko ni nii dañu ñaan yàlla ñu eggale ko noonu jàmm moom fu amul dara mënu fa am surtout Touba dara jëru ko fi waaw te ku yàlla dogal ne mooy am ndam kooku rek mooy am ndam kon li ñuy wax rek mooy ku ci nekk boo voté nga dellu sa kër nga déglu résultat yi te xam ne violence mënu fi am ndax ministre de l'intérieur jël na ci ay matuwaay yu mat sëkk te jàpp naa ne fii ku fiy jéem a voté violence yow da ngay xaru sa laa wax kon nañ voté jàmm woote si jàmm delluwaat ci kër yi te xam ne fii jàmm moo fi xaj ndax Cheikh Mamadou Mountakha loolu la bëgg bu dee ba tere activité politique yëpp ci dëkk bi xam ne vote lu sacré la mu bàyyi lu ñu voté kon war nañ ko sàmm ne war ne ko li ñu bàyyi mérito nañ